pare naa def. waaw sama la bien. yow doxee nga naan ji. ii moo taxit kay sama sama mbag dëgg la kay. def. fi. sama tante woote na fi ah. Mhm. ah lu ñu wax. ah nee muy am tan bu baax. ah alhamdulilah. mi mhm. ngi am tan rek kay yàlla baax na. baax baax ok li ma jaaxal ñun ñëpp wér nañ ba mu moom. buñ koy def moom moom feebaram moom dafa yàgg lool. moom moom mais ah, mu am tension. waaw naa ne ñu ko tamit guérison bi dégg naa ñu daan naan bi daal boo ko amee wala jabet bi daal day yéexal faj ah, naa ñu koy wax. baax na yàlla loo bëgg a ndogo. ah xoolal rek. Ah, wax ma rek loo bëgg. Eh, xoolal yow koy loo xoolal defar rek. ah wax ma rek loo xam naa ne moom sama tante da daan la defar ndogu yu loo loo ma bëgg a defar. ah daa ma defar la kon ay la daan defar. waaw oh, waaw voilà nag yow mii nag yaa xam nag yaa xam li ma bëgg nag. Ah, ndax sa ndax imam moom la ma daan defal. waaw ah, defal côtelette yu baax waaw. waaye nag boo ko defaree ba pare nag. waaw bu ko bu ko bokkal bu ko sa wàjj nag bàyyi ma bu ah bu ko xam naa ni yàlla baax ya ya na yàlla baax na mom baax na moom xam naa julli danaa ñaan danaa dem ci yaa mani fu ndax ci kër gi ndax fils ko togg rek lay def nag wuy ko. wuy ma loolu andiwul waxtaan nag paa bi. Ah. na. Hmm. tey fii ngay fanaan. Ah. waaw. na waaw lijjanti naa koo pare. Hmm. Hmm. kon baax na. ma nag loolu weesu après koor gi day neex de. neex. kay. dina neex. xam nga di ma la wax. day neex de. kon baax na. kon neex na. maa ngi whatsapp. ah sànn si jàmm ça va. waaw maa ngi nii rek. maa ngi si jàmm naka yittee rek. yitte yaa ngi nii rek. ah xëy bàyyi nga ma de. ah bàyyi ma na si lu si mu ngi si mu ngi fa mu ngi si jàmm. ba mu ngi si jàmm bu baax. mu si jàmm alhamdulilah ana Cheikh ak Paa Cheikh mu ngi fi. mu ngi si jàmm mu ngi si jàmm bu baax na na ren kan nag lo dama bëggoon ñu waxtaan. parce que kan? mhm. suñu entreprise bi ñu kan? nekkoon. Mhm. personnel bi dañ ko mujjee wàññi parce que affaire feebar bi pandémie bi mhm. personnel bi leen mujjee wàññi quoi. te man si ñuy wàññi si laa bokk. da jamono ji yarna ay besoin yo xamantene bëgg na ko faj ak ay affaire yo xamne daf ma war ci kër ga. xam ma bu ko def te essence yi nii dafa dëgër quoi ngay na mo ra ma xama jaar. pour jéem la wax su fekkee ne mun nga ma jàppale financièrement. Mhm. ba affaire yi jàll. ah Alsaan yow xam nga ni tey moom frère. waaw ah. gis nga lépp ba ma génnee hôpital ba tey. Mhm. lépp dëgg. feebar bi vraiment tëj na porte yëpp lépp a dëgg. Mhm. vraiment mais ak may may fii ak quelque temps. dinaa la jéem a lijjanti daal. foog nga mën a gérer sa yenn besoins yi d' accord yaakaar tas na mais yàlla baax na. waaw yàlla baax na yàlla yàlla def xéwal rek incha allah yàlla baax na déglu ma fii quelque temps rek yàlla baax na. d' accord am problème. yow góorgóorlu. àdduna bi réew yëpp a jaaxle feebar bi sonal na ñoom. ñoko gissendo giss gis ngeen xaan dem na ñaan dembal mag ñu ngi leen di ñaan képp ki nga xam tane nga sa morom nga dimbaliko malgré aidu état bi ñu dem ci njoogu njoogu mo ngi continuer di propager fièvre bi té mom xamuko ko ñu ngi leen di ñaan nga gën respecter mesures barrières